xam nga tu saaga moom ba xam ne diine lislaam waaye benn diine bu ko nangu euh, diine mooy jàmm diine yëpp yëpp woote mooy harmonie même ñi ñu bokkalul diine sax dañoo digal ñu dund ak ñoom ci harmonie dund ak ñoom ci jàmm dund ak ñoom ci xam ne yaa ngi jëf lu mel noonu yaakaar naa da ngaa génn cadre diine ndax yaakaar naa ku yaru ku wala nga yaru yaru diine ak diine ba mënta bokk doo saaga koo bokkal diine wax na wax rek saaga koo bokkal diine kon nag loolu dañ koy ñaawlu di ko méttudu rek foofu tey nañu ñëwoon ci institut islamique euh, bu Dakar grande mosquée euh, am ndimbal lo xamni dafa jóge won ci kuréel bi gina biñ ci amé ñu ci jàppalanteel muy ben kuréel bu mag bu ñu aussi waa ñu ñëwoon fi ngir jël lu mat téeméer ak juroom fukk yo xam day sellal ay loxo euh, nit ñi di ci mëna sellal loxo ci bëre bi nga xam mbolé dañ fay dajé lu melni ni daara yi ak jumaa yi ñu gisoon ni loolu ku koy def da ngay wut buntu mbir mu ne day am buntu te buntu daara yi mooy fédération bi ak ligue bi buntu imaam yi mooy ñaari kuréelu imaam yi nga xam ñoo ne ci réew mi muy kuréel bi nga xam ne moo lëkkalee imaam yeeg prédicateurs yi te oustaz Dame Dia jiite ko ak kuréel bi nga xam ne moo lëkkalee imaam yeeg borom xam-xam yi te imaam suñu wayjur Cheikh Moustapha Gueye jiite ko euh, loolu daal a waraloon jotaay bi euh, kuréel bi yemul ci jox leen loolu rek waaye yomb jox na leen sax lu yombal mbir mi àgg fa mu jëm loolu yëpp nag ginnaaw yàlla bu ñu ko réussiree dafa am kuréel bu mag boo xam ne moo nekk suñu ginnaaw di ñu jàppale muy kuréel boo xam ne lépp euh, saytu doomu aadama di sonn ci doomu adama di lekkere di saxal jamm ci kaw suuf ñom dañ ci yëngatu loolu moo waraloon euh, jotaay bi fi ñom ñëpp tew nañ fi rafet rafetlu jotaay bi suñu mbokk oustaz dami def jëf ju rafet ndax biñ ko joxe kaddu ci turu kuréel bi mu jëlee dañ tay buñu dajé man ak Sëñ Moussa day melni benn kuréel la lool da moy wane waxdatul umma mm-hmm. lool moy wane benn jullit ni lool it motax cadre bi jog ndax cadre bi ñi ne ci biir cadre bi am nañuy juma am nañuy daara mais xamni ni kuréel yooyu daj li ñu daj ci réew mi ak li ñu daj ci duma ak li ñu daj ci daara yi moo tax ñu ne nañ leen ko jox ñu yombalal ñu liggéey bi loolu daal moo waroon jotaay bi tey fii ci institut islamique ñu ngi leen di sant